alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi allazina istafa wassalatu wassalaam ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam baasahu ila annaasi kulli bashiran wa nazira salawaatullahi wa salaamu alayhi wa ala alihi wa man saara bi nahjihi واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى قيام الساعة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن الحديث عن مسؤولية الإمام في المجتمع هو الحديث عن دور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث عن الورثة التي ورثناه عن الرسل wa haadihi alwarasa hiya masulatu alulama fi dawri almujtama min alnaxiyati alilmiya والناحية الاجتماعية ومن ناحية الثقافة والاقتصادية mbokki jullit yi ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala moom yi nga xam ne moo yeyoo ak cant ñu ngi laqatu ci moom ci mbooleem suñu ay bon bonu ba kenn ak suñu ñaawtee fi jëf di julli di sëlmal ci sangu-sangay suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu wàcceel waamee xéewalam ci moom ak ay saxaabaam ak képp koo xam ne mu ngi jaar seen yoon di niitu seen njub okeraa ñuy wuy ji borom bi mbokk ñu bokk yàlla waxtaanee taxawaayu njiit si biir penc mi mooy waxtaane taxawaay ba nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanamu jullit ñi waaye mooy waxtaane ndono lu rëy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi doon ne ci yonente yi ndaxte dañuy wax ne boroom xam-xam yi de ñoom ñooy doon ñi nga te ñoom ñooy yonente yi ndono googu nag mbokk yi mooy ñu féete leen ci fànn dund yi nga xam ne moom lañuy ñuy waaj lim mooy ñi nga te ñoom la yàlla nattoo ñu jiite war nañu nekk ñoo xamante ne danañu matal ñañu jiite ci seen wàllu xam-xam bu ñu ne xam-xam dëgg mooy war nañoo fexe ba jàngal leen seen diine lépp loo xamante ne war nañu koo xam ci seen ay faratay jëm ak seeni wareef ak lépp loo xamante ne dees na leen ko laaj ëllëg bu leen gaaralee walla bu leen gaaree seen kanamu borom war na ci seeni njiit ñu xam lenk ko moo tax borom bi tabaraka wa doon na melal ci alquran ca suratu tawba suratul maida di wax ay melokaan yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite war nañ koo melo borom bi waxoon ci ne war nañu nekk ñoo xamante ne dañuy wot téere yàlla bi tabaraka wa bi mastuhfizu min kitaabillah war nañu nekk ñoo xamante ne dañu ngéeju am nañu aslëf ci li ngante mooy téere borom ci wàllu njàng walla ci wàllu dégg waaye ci jottali leen ko ci anam ba nga xam ne moom la leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon leen ko jàngale moo tax mbokki jullit nattu la ci koo xamante ne yàllaa ko nattu teg ko ci kanam ñi nga xamante mooy ay nit mu leen di jiite ci mu waral ci ñoom wala mu war ci moom mu matal ci ñoom yi nga xamante moom mooy seeni farat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa masul dañ di jàngale waaye di géewal li nga xamante mooy jotaayu xam-xam saxaaba yi dañuy nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom de kat la woon fii xillihi wa tirxaalihi jamono yi muy nekk ci biir Madina da daan ubbi ay jotaay di jàngal ñi ngante mooy saxaaba yi waaye bu daan nekk ci yoonu tukki dadaan jàngale moo tax mu bari lool ci ay xadis ak ay taxawaay yom te ci wàllu diine ñu lay wax na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon na benn ci ay xareem wala benn ci ay génnam ba mu yeggee ci palaas sàngam ñi na la nee la tuure woon ndox wala ñu ne la digaloon na leen nii wala tere woon na leen lee loolu lépp di wane na masul dañ di sot li ngante moom la ko yàlla dénk ca ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon ci ginnaawam moo tax su fekkente ne yàlla dafa def njiit mi mu nekk comme te moom la ñu xaare seen wàllu diine war na fexe ba ñamu jiite moom mu leen di jàngal waaye dana yéeme lool ñu ne diw moom moo jiite waaye duñu gis ci moom benn jàngale wala duñu gis ci moom benn jotaayu xam-xam wala du def benn génn boo xamante ne mu ngi jàngal ñi ngante moom la jiite kon fànn boobu wareef la ci ñi ngante mooy njiiti ñu taxaw ñi ngante ñoom la ñu jiite beneen bi mbokki jullit yi mooy min al naaxiya al ijtimaaiya ci fànn bi ngante moom mooy wàllu social mooy ñi ngante ñoom ñoo jiite doomu aadama yi dañoo war a maîtriser li ngante mooy penc xam gox yi ngante ñoom lañuy dund ana lan moo fay daw ci ña ngante ñoo fay yeewoo ca la leen yàlla wërsëgal si ay am am naka la toll bu ko defee danañu ràññee ñi nga te ñu ngi seen biir te nekk ñoo xamante ne ñu aajowoo nekk ñoo xamante ne ñu soxlaa lañu ñu leen di ges di leen dimbali ndaxte du doy rek ñiy jël ndimbal wala taxawu di taxaw ñi nga te ñoom ñoo ñëw ci biir di laaj ak di sàkku ndimbal borom bi tabaaraka wa taala moom moo ñuy xamal ne am na ñoo xamante ne ñu ngi si biir sàppey jullit ñi wala ci biir mbooloo yi nekk ñoo xamante ne ay néew doole lañu waaye ñoom de mënuñoo laaj borom bi de wax fële ci suratul baqara ñi nga xamante ñoom ñooy génn ci yoonu yàlla ñoom de bu ñuy génn yàlla nee na amuñu dara waaye bu ñu soloo ba taxaw ci kanamu nit ñi wala nekk si biir mbooloo bi ki ñàkk ab sell wala ñàkk xam dana yaakaar ne ñii de oomal nañu ñàkkuñu dara borom bi ne ñooñu duñu tàllal mukk jamono du yàgg yàgg ba ñu tàllal seen loxo di laaj du yàgg yàgg ba ñu tàllal seen loxo di laaj loolu nag dafay jar ci ñi ngante ñoom la yàlla na nattoo ñu jiite ñuy ràññee ñooñ si société bi bu ko defee comme ñoom mënuñoo tàllal wala mënuñoo wax seen soxla ñu leen di fekk fa ñu nekk di leen dimbali te li ngante moo ruus ngir ñu war koo delloo ci ñi ngante mooy jullit ñi ci loolu mbokki jullit noonu la ñu war a organiser woo ba am loo xamante ne moom la ñuy dimbalee suñu néew doole loo xamante ne lañ ko fee teg saa yu fekkente ne am na ko soxla soxla boo xamante ne mënta xaar ñu gëstu ko si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daf ko amaloon moo tax ñu daan dégg jamono ji nekk li ngante mooy baytul maan loolu mënte ñàkk ci li ngante mooy pencum jullit ñi beneen bi mbokki jullit yi ñi ngante ñoom la yàlla na toobalee ñu ay njiit war nañoo fexe ba di ges ñi nga ñoom la ñu jiite ci fànn bi nga mooy jur seen wàllu koom-koom kon ñi jiite du question rek amuñu sañ-sañ ci wax ci li ngante mooy daw ci penc mi ni ñuy gouverner wala ni ñuy doxalee gox-goxaani wala di ko doxalee li ngante mooy réew yi ne ñoom amuñu si place wala amuñu si kàddu déedéet njiitu question rek da ngay taxaw ci li nga xamante ne mooy jàkka ja di jiite boo paree leneen li xew ci dëkk bi yow du mënoo ci wax kooku matul li nga mooy njiit ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la daan melal dañ lay wax ne moom moo nekkoon li nga xamante ne mooy imaamu jàkka ja waaye moom moo nekkoon président de la république waaye moom moo nekkoon li nga mooy général de guerre ba ndaxte fànn yooyu yëpp moom moo ci doon taxaw taxawaay bu bi moom moo ci war kon doxalin li nga xam te mooy suñuy réew ni ñuy sàmmee li nga xam te mooy suñuy alal ak ni ñuy oomalee suñuy moomeel loolu ñi nga xam te mooy njiiti am nañ ci li nga mooy taxawaay su fekkente ne ñoom nekkuñu fa nga fa la ñuy dogale mbir yi di ñoom ñooy jël décision yi ñoom ñooy génn budget yi ak di nga mooy di ko traité war na am kàddu goo xamante ne war na egg ci ñi nga ñoom la yàlla nattoo ñu jiite réew yi wala ñi ngante ñoom la yàlla nattoo ñu jiite gox goxaani bu ko defee ñu sotti leen seen xalaat ba alal ji ngante moo fi nekk koom gi ngante ne moom moo fi nekk su fekkente ne nañ ko dana jëriñ ñëpp waaye bu ñu seetaanee ñoom ñoo si njëkk a sonn ndaxte néew na ñu gis koo xamante ne soxlaa na ne day dem li ngante mooy si président di ko sàkku soxlaam waaye chaque jour ñu gis li ngante mooy jàkka yi ñu dikkal li ngante mooy imaam di leen sàkku li ngante ne mooy ay ndimbal waaye di leen gaar li ngante moo ay jafe-jafe moo tax ci loolu nag lañu ñu war a am kaddu gomte moom la ñuy yëkkati jëmee ki ci ngante ñoom ñoo jiite ngir bu ko defee alal jooju mën a tasaaroo naat ba ñëpp a gis seen bopp wa illaa ñoom bokkar ñi ngante ñoom ñoo njëkk si biir jafe-jafe yi ngante moo ci tukkee aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له mbokki jullit yi ñu ngi delluwaat di sant borom bi comme ni mu yeeyoo ñu sant ko di jullit di selmal ci sangu sangay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu wàccee waa may xéewalam ci moom ak i saxaabaam ak képp ku xàll seeni yoon niitu seeni njub ba karaa ñuy wujji borom bi mbokki jullit yi ba léegi ci wàllu jiite am na wet goo xamante ne du njiit ba ngante moom moo nekk si jàkk ji dong ndaxte yenente bi sallallahu alayhi sallam moom moo leeraloon ne li ngante ne moom mooy njiit su fekkente ne rafetal na ñu mu jiite dana bokk si juróom ñaar ñi nga xam ne ëllëg yàlla dana leen keral kero ba nga te ñëpp ay soxlaa ker waaye du ñu am ker du keru seen borom yonent bi salaa sallam bu muy firi xadis bi mu leeral nañu ne njiit nekkul rek ka taxaw ci kanamu doomu aadama di leen jiite si yàkk waaye ka nga xamante ne moo nekk ci biir kër gi moo xam jigéen ba la wala góor ga la moom it njiit la masuliya bi nga ne muy responsable bi nga moo war ci yi ñu waxoon sànq ci ka jiite jàkk ja moom moo war ci moom ca la ngante moo nekk ci biir kër gi kon góor gi njiit la moo xamante ne danañ ko laaj ñangante ñoom la jiite ci njaboot gi seen wàllu njàng njaboot gi seen wàllu yar waaye njaboot gi seen wàllu jikko niki noonu même laaj yooyu danañ ko laaj ci ngante moom mooy jigéen bi ca na ngante noonu la doon yaree xale yi noonu la leen doon saytoo ceen wàllu diine waaye noonu la doon saytoo seen wàllu jikko yéen def saa saa wax ba léegi xatta minda mi ngante mu ngi si kër gi moom it li ngante ne mooy danañ ko laaj kon képp koo xamante ni dafa jiite li ngante mooy mbooloo keroogee dana teew ñu laaj ko ci li ngante mooy mbooloo moom moo xam association la wala GIE la wala mbooleem tur yi ngante moom lañ leen di tudde mu nekk ay njiit su boobaa ñooñu danañ leen ko laaj ñooñu nag ñañu jiite bu ñu rafetalee ci ñoom ragal yàlla ci ñoom matal àq yi ngante moom moo leen moole su boobaa dana bokk ñi ngante ñoom leen yàlla di keral kero bi nga xam ne ker du am lu dul keru borom bi tabaraka wa taala beneen bi mbokki jullit yi mooy nañu bàyyi xel ne borom bi tabaraka wa taala mu nga ci alquran ne ëllëg bés penc danañu woo bépp li ngante mooy xeet ka ngante mooy woon seen njiit leewal li ngante mooy cosaan ba ca laaja mooy xeet wu nekk yàlla dana oo ka ngante moo leen woon moo xam nabi la woon wala li ngante mooy rasul la woon moo xam ku ñu solool la wala comme dañ ko solo ba pare yónni ko ci li nga mooy aw nit waaye it képp koo xamante ne yàlla def ko dénkoon moo xam président de la république la yàlla dana ko gaar ci kanam li ngante ne mooy aw nitam laaj ka na la nekkoon ci ñoom nan lañ leen doon seetulee li nga mooy seeni moomeel ka nga moo jiitoon ab gox wala ka ñu dénkoon ab ministère képp comme te dénkoon nañ ko loo xamante ne ay doomu aadama ñoom ñoo sa séq su boobaa loolu danañ ko ko laaj ba si ki ngante moom moo gën a ndaw mooy ki ngante moom moo jiite mbooloo wala ki ngante moom moo jiite kër beneen bi mbokki jullit yi li ngante war nañ koo bàyyi xel mooy ñi ngante ñoom la ñu ji ñoo jiite it dañ leen war a dimbali dañu leen war a taxaw ca la nga xamante ne noonu la ñuy rafetale la ñu jiite tàmbali ngante moom mooy imaamu jàkka ji ku ñu war a taxaw la ci fànn yi nga xamante moom mooy tax mbooleem soxla yi ngante ñi ñaa ko koy gaaral mu man leen ko fajal ndaxte bu ñëpp jullee ba noppi ba dem seeni kër imaam këram lañ koy fekk ji ña ko fay dikkal ndig di ko laaj ci ay soxla kenn xamul nu mu toll su fekkee imaam boobu nag kenn ku ngew ko taxawuñu ko su boobaa nag te moom la mu yoroon nag mënu koo sax mate su boobaa ña nga xam te ñooy sàkku si moom dimbal dañu am jafe-jafe niki noonu it noonu la ñuy dimbalee njiit bi moo xam ku jiite gox la ci lépp lom te moom la teg ngir mën a suqali ab goxam lépp lom te moom la teg ngir mën a naatal fa ngante fa la jiite loolu ñu dimbali ko si waaye du ñu jiite ñu nekk fële di leen yàqal li ngante moom la ñu teg ndaxte ñoom seen ak réussite ak seen ak naataange moom mooy naataange li ngante mooy penc mi noonu lay roogalaate mbokk yi ba ki ngante moom mooy ki jiite réew mi mooy président bi comme suñuy ñaxtu yëpp si ñoom lañ koy delloo suñuy jooytu yëpp ñoom lañ koy jooy mboolem xasi ñoom lañ koy xase ñoom dañ leen war a dimbali nan jàppale leen gunge leen ci li nga xamante ne moom la ñuy réussir yéen bi ngante moom la leen yàlla yenn kon ci tënk rek mbokk yi képp koo xamante ne jiite na benn dañ ko war li ngante mooy dimbali waaye moom war noo yëg ne loolu mas masuliya la responsabilité la te wu ëllëg dana teew ci kanamu boroomam boromam laaj ko ko su fekkente ne rafetoon na dana bokk ngante yàlla dana leen jéggal waaye dana leen li ngante mooy sàng ca ngante mooy keram ga waaye su fekkente ne dafa ñaawaloon ca ñi mu jiite comme nag sa sam waxoon ci benn xadis képp koo xamante ne jiite na lu toll ñett waaye ragalul yàlla ci ñoom matalul li ngante li taxoon ñu dénk ko ñooñ kooku ëllëg danañ ko yenn li ngante mooy suuf te su xam boobaa du xam na la koy yéene ko koo nit ñu daane lee ne képp koo xamante ne amul li ngante ne mooy capacité wala compétence yi jiite benn mbir jarumu koy xëccoo ndaxte bari yaa na ñuy xëccoo mbir te la mu mujjee mooy lan mooy mu nekk li ngante xamante mooy takalluf takalluf mooy nga tegoo sa bopp loo xamante ne ëllëg bés buñ la ko laajee doo xam fan nga koy layo moo tax yal na yàlla tënkañu ñi nga xamante mooy ñi suñu kanam ak ñi nga ñoom ñooy boroomi xam-xam rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabu rahim rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin inna laa ya'muru bil adli wal ihsaan wa itaa'i zil qurba wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkaruun uzkuru llaaha yazkurukum washkuruhu yazidkum wa lazikrullaahi akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun wa quumu ilaa salaatikum yarhamukum llaah